alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi ñu xam ne xolub doomu aadama day feebar ni yaram di feebare day xumaag ni ab seetu di xumaage day xiif ni biit ni biir di xiife xolub doomu aadama feebar yu bari moo koy gaar feebar yooye ba ca yées te gën caa tar ci diine doomu aadama mooy feebaru xol bu wow xol bu wow musiba mu rëy la feebar bu metti la boo xam ne am na màndarga yu koy wone am na ay sabab yu koy waral am na it nag yu koy saafara kon képp koo xam ne xool nga sa bopp gis ne màndarga yii mi ngi ci yow wala am na ci yu nekk ci yow boo xoolee sabab yi da nga gis ne sabab yooye am na ci yu la dal moo tax feebar bi ne ci yow waaye boo xoolee ya koy saafara it boo koy jëfee feebar ba di dañ yàlla na nu borom bi tabaraka wa taala jàpp ndalal képp koo xam ne dara gaar na la ci loolu nga mën a jëfandikoo saafara sa ndax nga mën a tàggoog moom yii wane ne feebar bi dal na nit ki yu bari la ba ci jiitu mooy tàyyeel ci topp yàlla ak def lu baax saa nit ki yëgee ne tàyyeel na ci topp yàlla tàyyeel na ci jóg defi lu baax loo xam ne amu ci intérêt àdduna nga xam ne xolam a ngay wow te borom bi tabaraka wa bi muy melal naafiq yi daf ne bokk na ci seeni màndarga mooy suñ jógee di julli ji ak tàyyeel la ñuy yëg suñ jógee di julli ji dañuy tàyyeel bokk na ci yi wane ne xol bi wow na moo di di déglu alquranul karim ak i waaraate ñi koy jàng ci sa kanam te sa xol amu ca soxla maanaam amul benn jeexit ci déglu gi muy déglu alquran wala benn jeexit ci waaraate yi nga xam ne ñu ngi koy waare su ko defee muy déglu alxuraan ak la ca nekk ci ay tëkku ak la ca nekk ci yoo xam ne yu war a tiital doomu aadama la lay jiitu ci xolam mooy jàpp ne loola ñeneen la ñuy wax waaye moom bokku ca su ko defee kooka xol ba wow na moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttalil jëfandikool alxuraan ci fàttali képp koo xam ne ragal na digg bi leen yàlla dig muy daje gi ngeen war a dajeeg moom ki ragal alwaid muy digg bi suñ borom tabaraka wa taala wala tëkku bi mu tëkku nit ñi ka ko ragal kooka la alquran di jëriñu moo tax mu ne fa zakkir bil qurani man yaxaafu waid borom bi tabaraka wa taala nee na ñi gëm yàlla ñooñu mooy ñi nga xam ne buñ tuddee yàlla seeni xol dafay tiit buñ jàngee alquran fi ñoom da leen di dolli ngëm yàlla kon ñooñu mooy ñi nga xam ne seeni xol dafa mucc bokk na ci yi wane ne xol bi itam dafa wow mooy lii romb nit ki ci ay mbir yoo xam ne war na caa waaru mu dem ba waarootu ca lu mel ne dee di dox di romb xabru yi di gis doomu aadama yi fiñ tëdd ak dee ni mu war a mën a waaree doomu aadama loola du ko waarati déglu musiba yi xew ci àdduna ak tremblement de terre yeeg suuf yu yëngu yeeg lakk yu metti yeeg musiba yi wàcc ci kaw doomu aadama yi su koy déglu mel na yoonam nekkut ca loola kooku mooy wane ne xol ba dafa wow bokk na ci yooyu mooy xol bu aju ci àddunay kese maanaam bëgg àdduna te sori àllaaxira lool su ko defee kooku àdduna képp mooy doon soxlaam ku muy xaritool àdduna mooy tax mu xaritoog yow ku muy mere àdduna mooy tax mu mere la ku muy bañ àdduna mooy tax mu bañ la kooka boroom xol bu wow la bokk na ci yi koy wone it moo di am na ak tumuraanke gu ne ci biir xol bi boo xam ne nit ki moom lay yëg maanaam aw tiis lay yëg fu mu toll ab dundam du neex day yëg ne dënn bi dafa xat am na lu ko naqari am na lu koy metti loo xam ne xamut lu mu doon lu dundam neex neex ak lu alalam bari bari day yëg ne am na metit bu nekk ci biir xolam woo xam ne xamut lu koy dindi su ko defee naqar woowee tiitaange loolu ak njàqare loolu mooy wane ne xol ba dafa wow ku yomba mer lay doon léeg-léeg sabab su ñàkk solo moo koy merloo léeg-léeg mu mer sax te du xam lan mooy sababu mer si dëgg-dëgg kooku mooy wone ne feebar bi dal na nit ka bokk na ci it lii wone ne feebar bi dal na nit ka mooy li ñuy wax yërmaande dafay génn ci xolam boobu amatu ko xalaatatul keneen boppam rek lay xalaat du yërëm ku ñàkk du yërëm miskin du yërëm ab jege ñaale ni ko borom bi tabaraka wa taala waxe yahud yi rek ne leen seeni xol dafa wow ba mel ni ay doj seeni xol dafa wow ba mel ni ay doj ay montagne mu ne sax seen xol yi dafa mel ni moo gën a wow ay montagne kon benn boo xamee gaar na doomu aadama ci yooy yi ñu tudd na xam ne feebaru wowu xol gaar na ko wowu xol nag dafa am sabab yu koy waral maanaam yoo xam ne moo tax xolub nit ki wowu yooye mooy lan ba ca jëkk mooy bëgg àdduna jublu ko won àllaaxira gannaaw loolu kum dal fawwu sab xol wow ndax da ngay daal di fàtte dee ak li nekk ci gannaawam ak lépp lu ci aju bi ci des mooy càggante sàggan nag buñ ko waxee mooy nit ki la mu waroon a jox itte joxatu ko ko dafay mel ne fàtte na ko la ko yées loola lay aj léppam kooku mooy càggante moom nag feebar bu doy waar la bu mettee metti la moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa tudde ne ñi nga xam ne dañoo dem ba sàggan ñooñu dafa mel ne dañoo kaste seeni xol dañ caa teg ab tàmpo mënatuñoo xam lu baax mënatuñ koo dégg moo tax mu ne jahannama day ña koy feesal bu ëllëgee ci nit ñi ak jinne yi ay nit lañ yoo xam ne am nañ ay xol waaye xol yooyee duñ ko feesal dell ak dëgg ak lu baax am nañ ay bët waaye seen bët yooyee duñ ko xoole lu baax lu bon lañ cay xool am nañ ay nopp waaye nopp yooyee duñ ko dégloo lu baax kon lu bon rek la ñuy déglu moo tax mu teg ci ne ulaika kal an'am nee na ñooñu ñoog mala yi ñooyam mu teg ca ne sax bal hum adallu mu ne ñooñu sax ñoo gën a réer mala yi ndax mala yi la taxoon ñu bind leen ña nga ca moom nag la taxoon ñu bind ko nekku ca moo tax mu ne ulaayika humul gaafiloon ñooñu mooy ñi sàggan bokk na ci sabab yi koy andi it mooy ay àndandoon yu baaxul kooku ci yi sabab woowu xol gi ci lay bokk su fekkee àndandoo yu baaxul nit ki fépp foo xam ne fa lay toog jaxasoo ñoom di déglu seeni wax di waxante ñoom guddi ak bëccëg mu nekk ca loola bu yàggee lañu nekk faaw mu jaxasoo ak moom faaw mu dal ko la leen dal dana ko dal toog rek waxtaane loo xam ne lu baaxut la waxtaane yu xaraam toog rek kaf ak ree ak indi yoo xam ne ay caaxaan la toog rek di seetaan yoo xam ne ay film la ak yu jëm fenn ay caaxaan kooku koo xam ne moom nga saxoo sab xol faw dana mujj wow ndax dafay sori tudd yàlla dafay aju ci àdduna day aju ci caaxaan day aju ci pop loolu mooy wowal xol ba bokk na ci yi koy wowal itam moo di bari nit ki loo xam ne daf koy dugg ci mooy yàlla moo xam mooy yàlla la ci wàllu wax muy di jëw ak rambaaj ay digganteeg wax lu xaraam ak yu mel noonu comme sax ci yow sa xol dana wow euh, <coughs> moo xam itam ci jëf la lekk alali jàmbur ak euh, dox tànk yoo xam ne tànki caaxaan la ak fu mu mën a jëm loolu lépp ay xeet la yoo xam ne koo xam ne sax na ci ab xolam day mujj wow duutu faale dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi nee na jaam bi su defee bàkkaar dañuy daal di tomb benn tomb bu ñuul ci xol bi bàkkaar bu mu def rek ñi tombal ko tomb bu ñuul yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su tuubee ñu dindi loola xol bi setaat wecc su continuer nag di def lu bon rek saxoo ko bu yàggee xol bi dafay mujj lépp ñuul kukk ba duutu mën a xàmmee lu baax ak lu bon nee na loolu mooy li borom bi tabaraka wa taala wax ne kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun nee na xumaag jooju sunu borom tabaraka wa taala di wax ne mooy tegee ci kaw xol yi mooykati yàlla yi nee na su boobaa xumaag jooju moo koy dal xol bi day xumaag su boobaa nag la koy dindi mooy saafara yi ñu tudd ca kanam bokk na ci yi koy waral it moo di nag fàtte dee ak sukkuraatus ndee ak bàmmeel ak la fa ne ci ay njàqare ak mbugalum bàmmeel ak xéewali bàmmeel ak balaas yi ñu la fas yéene tegal ëllëg xool say jëf nu mu ak sa téere yi nga xam ne nar nañ koo génne ci sa kanam ne la jàngalal sa bopp sa téere nga koy jàng ci kanam mbooloo mi loo ma sa def jaar ga ngay jaar ci kaw siraat sawara wa nga xam ne dañ ko faa tegal képp koo xam ne mooykatu yàlla la te sax ca ba fàww wala mu doonub yéefar wala képp koo xam ne ab xolam dafa wow su fekkee ne yooyu jóg na cim xelam xalaatatu ca bàyyeetu ko xel kooku mooy wowal ab xolam kon loolu lenn la ci mbir yi nga xam ne dañuy wowal xolub doomu aadama ki feebaru wow xol dal nag borom bi tabaraka wa amal na ko saafara saafara yooyee lu am solo la ba ci jiitu mooy sàkku xam-xamub sharia sax ci sàkku xam-xam foo toll fu nekk di dolliku ci sa kem kàttan ci xam-xamub alquran ak sunna xam-xamub tawxiid boo xam ne mooy tax nit ki wéetal yàlla mucc ci bokkaale xam-xamub sunna boo xam ne mooy tax nit ki topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sori lépp loo xam ne mooy xeeti bidaa loolu ci liy xett li nit ki ab xolom bi woowoon wëlbatiku tooyaat loolu ci la bokk bokk na ci fàttaliku dee mooy safaanub yañ tuddoon rek bu dee fàttaliku dee ak sukuraatus ndee ak bàmmeel akub lëndamaayam mu wóor ko ni lu mu fa yóbbuwul woon ci jëf du ko fa fekk fàttaliku itam wala muy teewe sax nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci sukuraat di bëgg a faatu mu di leen gis di teewe néew yi ñuy rob di gas di suul mu di ca teg bëtam yooyu ci saafara xol bu wow ci la bokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci beneen ba euh, dafay wax ne aksiru dikra haadimi lazat bari leen lu ngeen di fàttaliku dee bari leen lu ngeen di fàttaliku dee bokk na ci sabab yooyu mooy ziyaare ji ay xabru dem seeti bàmmeel xool doomu aadama yooyu nga xam ne boroomi pexe lañu woon boroomi alal lañu woon boroomi man-man lañu woon ñoom ñépp ñu jekki-jekki suuf war leen ñu bàyyi seen alal yaag seen kër yaag seen doom yaag lépp loo xam ne lu amoon lañ mu teewe loolu xalaat ne moom mii kat tuuti rekk moo des pour mu dem fekki leen xam ne fa mu jëm mooy foofa ak mu jëm mooy seenu mujj kon loolu ak waaree ngi ci joo xam ne li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane ko mooy day tooyal ab xol moo di moo tax mu ne tere woon naa leen ngeen dem siyaare ji xabru yi waaye dem leen siyaare ji ko ndax kat dafay tooyal ab xol dafay tooyal ay bët maanaam dafay jooyloo nit ki day fàttalikuloo nit ki itam allaaxira mu ne nag waaye bu ngeen di siyaare xabru it nag bu leen def lenn loo xam ne lu juyoog sharia la maanaam bu leen fa nekk di wax lu jaaduwut wala ngeen koy def wax lu jaaduwut mooy mel ne ka tëdd ca bàmmeel ba nga di ko ñaan faf wala ngay ñaan yàlla ne ko jaaraleel ma ko ci diw yooyu yépp lu teguwul ci yoon la wala ngay def jëf ju dul noona mooy ñëw di raay ca kaw xabru ba walla bant ya fa nekk wala weñ ya nga xam ne dañ ko fa samp yooyu yépp dafa doon yoo xam ne ci biir hujri lay doon mooy bu leen wax bu leen def ak neen su ngeen di siyaare xabru bokk na ci saafara yooyu mooy xool kéemaani sun borom tabaraka wa taala yi nekk ci biir alquran xalaat ci yi yàlla dig nitam ñu baax ñi war leen ko jox ëllëg ak yi mu tëkkoo noonam yi war leen ko mbugale ëllëg yooyu dafay fàttaliloo nit ki eh, day tooyalaat xolam kon alxuraan ci li gën a mën a tooyal xol ci la bokk moo tax borom bi tabaraka ko taala dafa ne alxuraan bu buñ ko day jàng ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom seeni xol daanaka duutu dal dafay dafay dafay yëngu yëngu ragal yàlla euh, goo xam ne bu yëngoo bañ dellu ci njàqare ñu fàttaliku ne seen borom la ñuy tudd seeni xol dalaat dellusiwaat ci seen borom tabaraka wa taala summa talinu juluuduhum wa qulubuhum ila dikrillah suñ ko déggee tudd yàlla googi mooy seen xol ya doon raf-rafi muy wëlbatiku dalalaat ko loolu xéewal sunu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko def bokk na ci yooyu bari nit ki lu muy tudd yàlla tudd yàlla yi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale bari na lool képp koo xam ne takkoo naa ak moom daanaka boo nga ne da ngay takkoo tudd yàlla sooy dugg fi béréb ak sooy génn nag ak fu mu mën a doon fu nekk am na looy wax soo dajeeku nit am na loo leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah sax ci biir tudd yàlla ci la bokk di tàqalikoo ñoom di leen asalaamaaleykum wa rahmatullah beneen itam kooku ci biir tudd yàlla la bokk kon jullit bi daanaka mouvement bu muy def bu ne dugg ak génn ak jóg taxaw tàmbalib liggéey noppi ci liggéey ak lu muy def lu nekk tudd yàlla nga fa saxoo googu mu saxoog tudd yàlla ak di jéggalu yàlla loolu ci li gën a mën a tooyal ab xolam la saafaraal ko lépp loo xam ne xeeti wow woowi xol la moo tax borom bi tabaraka wa taala ne ñi nga xam ne dañuy dañoo gëm yàlla la tax seeni xol dal mooy tudd yàlla ga ñuy tudd yàlla moo tax seeni xol ci dal la dëkk bokk na ci it yi ko mën a faj muy xol bu wow di seeti nag boroom xam-xam yi nga xam ne ñuñ jort ci ñoom ak ragal yàlla lañ ak topp yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jéem a jaxasoog ñoom di leen jéem a jege sa kem kàttan ndax ñoom soo néewee doole walla nga suufe ci wàllu imaan ñoo lay yokkaat su fekkee ne danga fàtte ñoo lay fàtt ñoo lay fàttali su fekkee da ngaa réere itam ñoom ñoo lay xamal moo tax borom bi tabaraka wa taala ci suratul kahf bi mu ne na nga jël sa bopp boole koog ñi nga xam ne dañoo saxoo di jaamu seen borom suba ak ngoon te jubluwuñ ca lenn lul seen jëmmi borom tabaraka wa taala kon mooy ñi am tawxid ñi am ixlaas taqool ak ñooña nee na te bu leen wan gannaaw mukk ngir taarub àdduna walla ngir am amu àdduna bul topp mukk koo xam ne danoo tàmpe ab xolam ba yàqu te fekk am amu àdduna képp moo tax kon ñooñu la yàlla booleel nga ànd ak ñoom te wattandiku ñeneen ñu dul ñooñu bokk na ci yi tooyal xol moo di yërëm miskin yi ak ñu ñàkk ñi ak muñ mën a doon nag ci xeetu ñàkk di xool jirim yi di raay seen bopp di leen jàppale di leen dimbali loolu ci liy tooyal xol ci la bokk bokk na ci itam mooy nit ki fu mu gisalu bon moo xam nit da koy wax wala da koy def mu soppi ko kem kàttanam su dee loo xam ne da koy laa biire mu bàyyi ko mu laay ko biir mu bàyyi ko waaye fexe daal ba bañ a tàmm di gis lu bon te doo am benn réaction di ko xool noonu rek kooku bu yàggee xol ba day tàmm lu bon te loolu day wowal xol kon foo gisee lu bon rek na nga jéem a def réaction boo xam ne sa kem kàttan pour loola jóg lay doon moo xam wax lay doon moo xam jëf lay doon su fekkee ne ka koy def dafa bokk ci sa njaboot nga sañ koo tere wala nga sañ jàpp ci loxoom wala nga sañ koo duma sax su fekkee ku ñuy duma la ci sa biir njaboot lu bon foo ko gisee na nga ci daal di taxaw ngir mu tëñ sa kem kàttan ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci xadis ba bokk na ci itam yi tooyal xol mooy di def yenn waru gar yu mag yi nga xam ne borom bi da ko santaane feddali ko lool muy lu mel ne topp ñaari waajur maanaam rafetal jëme ci ñaari waajur rafetal jëme ci ñaari waajur ak ñu mën a doon ak nuñ mën a mel rafetalal sa diggante ak ñoom ci wàllu àdduna lépp loo xam ne lu baax la nga di leen ci jàppale sa kem kàttan gëm ne lu baax li ngay def jëmale ko ci ñoom ak topp yàlla la goo xam ne tuyaabay sunu borom tabaraka wa taala nga ciy wut am awaa nga ciy wut leneen lu mu mën a doon kon lool ci lii tooyal xol la bokk bokk na ci it nag jullit bi mu bari lu muy ñaan di dellu ci boroomam di tàllal ay loxoom rawatina ci waxtu ñaan yi rawatina guddi yi rawatina ceer bi mujj ci guddi gi di julli di tàllal ay loxoom di ñaan boroomam di ko jéggalu di ko ragal borom bi tabaraka wa taala ne su ngeen ma ñaanee danaa leen may kon yooyu ay sabab la yoo xam ne bu ci nit ki jàppee borom bi tabaraka wa mën na ko baaxee xolam sax ci diine ji yonent bi alayhi salaatu salaam ànd ak ni mooy yonent bi daf daan wax ne yow sama borom sama xol bi yàlla na nga ko saxal ci sa diine ji loolu daf ko daan ñaan yow sama borom sama xol bi yàlla na ko saxal ci sa diine ji yaa muqallibal qulub sabbit qalbi ala diinik su fekkee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñaan loolu kon ñi ci des ñëpp ñoo sàggan ci ñaan te it kenn ku ne danga war a tiit ci sa bopp foo tollu fu ne ndax xol bi sunu borom tabaraka wa taala moo ko yor te xamuloo kañ lay wëlbatiku kon ñaan ko mu saxal ko ci diine ji lu ama am solo la loo xam ne jullit bi mënu koo ñàkk kon nit ki bu mu dem mukk ba jàpp ne moom naagu na ne man gindiku naa wala mu ne li ma def ci lislaam bari na ba jàpp naa ne man saa mbir moom baax na ba noppi loolu lépp pexam seytaane la ci nit ki nit ki fu mu toll fu nekk dafa war a nekk ci tiitaange dafa war a nekk ci njàqare di bàyyi xel ne seytaane mi ngi koy fexeel te bunt bu ne la koy jaare itam pour jéem koo yàqal al imam ahmad ibnu hanbal bi ñu ko laajee kañ la sa xel di dal ci mbirum àjjana daf ne bu sa tànkum ndeyjoor duggee àjjana bu sa xel dal li fekk tànkum càmmoñ du fekk si wugg ndax pexam seytaane moom daanaka du jeex ala wasallu wasallimu ala albashir nadir والسراج المنير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين wa adilla shirka walmushrikin allahuma farrij hamma almahmumin wa nafis karba almakrubin waqdi dayna an almadinin washfi mardana wa marda almuslimin allahuma waffiqna lissalihati qabla almamat wa arshidna ila istidraki alhafawati qabla alfawat wa alhimna axda alcuddati lilwafati qabla almuwafaa wa najjina yowma alcuburi ala alsirati xiina tuskabu alcabarat allahuma la tajcal addunia akbara hammina wala mablaga cilmina wala ila annaari masirana wajcal aljannata hiya daarana allahuma astur awratina wa amin rawatina wa anis wixshatana waxfadna min bayni aydina wa min xalfina wa an aymanina wa an shamailina wa min fawqina wa min taxtina allahuma axfir lilmuslimina walmuslimat wal wal والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأقم الصلاة ñu ngi fàttali mbokk yi nga xam ne ñooy jullee ci yi tam ne sàppe yi nga xam ne dañoo xaw a ne ca kanam ba jiitu imaam am na ñu ma wax ne am na sàppe yuy def noonu nga xam ne dañuy jiitu imaam ji ca kanam ñu jéem a dellu gannaaw bu baax a baax ndax kenn ba ñu julli ci kanam imaam ji ndax loolu mën naa yàq julli